plaît nag vraiment man su ma sañoon def témoignage bu bu bu rëy ci yow mais comme on est à l'antenne am na loo xamante ne vraiment jarul wax vraiment yow moom sunu grand bu baax na gis nañ participation yu am solo yi nga xamante ne da koy def ci waxtaan moo xam. ci antenne bi wala hors antenne. je tenais aussi à à le dire su nekkee régie am na ko bëgg bokk nga jox ma ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. journée bi. waaw ça va lépp a ngi dox. waaw waaw waaw li ci ëpp nag mi ngi dox de. Eh, dégguma. tamit li ci ëpp mu ngi dox moom. ah li ci ëpp mu ngi dox. waaw waaw ah kon yàlla na woy waay waaye na yàlla na wàll ñëpp ma ñëpp mu doxal. waaw amiin waay amiin amiin amiin amiin. merci merci uh-huh. damay suivre seen chaîne euh, lu bari ah. Mm-hmm. Euh, voilà donc. Euh, Régis je tenais vraiment. sëñ bi nga baal ma régie est-ce que yokkal tuuti volume parce que quand même euh, xaw na suufee ah est-ce que doolu ma yokkal ah, euh, doon waxal mu yokkal ma tuuti quand même bi parce que dafa xaw a faible à mon niveau d'accord ok aca bismillah voilà man nag damay suivre lu bari seen chaîne bi quoi mhm, mhm, merci voilà donc euh, je tenais à vous remercier merci beaucoup ci liggéey bu rafet bi ngeen def merci beaucoup parce que c'est pas évident suñu xam nga presse sénégalaise moom dama démissionné dafa yàgg trop. Mhm. dafa xaaj dañoo xaaj. Mhm. ñii nekk journaliste alimentaire. Mhm. ñun ñi nga xam ne dañu leen doon xeet sax naan ay journaliste ay kii la internet ak tout ça da <laughs> xam ne ay carte de presse yi gars yi dañ leen ci doon a xaw a am <laughs> euh, kiyal sax ñu ngi si di leen jéem a xatal ay liggéey di ngeen di def ñoom ñu ñëwee ay journaliste dëggantaan ñoom defaguñ loolu nag donc loolu moom yàlla na si yàlla fay si liggéey bu rafet boobu. merci merci ñu tax a jóg merci beaucoup. voilà donc man la booy ñëw si juste rek xam nga ñun suñu problème Sénégal dañoo hérité benn police bi nga xam ne te si euh, si colon colon yi lañ ko mhm. hérité mhm. ñoom bi ñuy ñëw dañoo nekk benn police bi nga xam ne répression bi mooy métier dañuy fexe bi nga xamante ni bu citoyen taxawee da leen di xool da mhm. leen di ragal da leen di tiit mhm. te ñoom ñëw ñu pour nekk koo xamante nii dañuy faj soxla yi citoyen nga xam boo leen séenee da ngay am mbégte mhm. mais tey boo nekkee comme euh, sama citoyen boo doxee ba gis militaire ci digg àll bi soxal bi day sedd bi d'accord mais boo doxee ba gis police wala gendarmerie da ngay day wax gendarmerie sax mën woon lool mais léegi temps yi la commencé mhm. commencé façon façon façon bu mel noonu mhm. parce que bu njëkk la police moo doon doxalee mel noonu ndax ñu ngi ko hérité woon ci colon mhm. moo tax am na liggéey bi nga xamante ne ñi ñëwaat dina war nañ ci def liggéey bu xaw a sori mooy de réformer waat ko réforme gën a profond mettre mettre ko au service des populations temps mu doon ñoo xamante ne suñ leen gisee tiit suñu gisee dañuy jaaxle soo accès ci commissariat salaamaaleykum bala ngay wax ñu la dégage mhm. boo wax ak ñoom ñu lay maîtriser donc yooyu yëpp mu doon yoo xam ne nii mhm. allo yooyu yëpp mu doon yoo xamante ni yeefe la woon quoi parce que boo leen daan xool bu njëkk da am njëkk si ñoom da xam ne ñii ak fop fop fop fop mais après temps yi moom mm-hmm. bu ñu mën dañu changé déjà dem xawma ci formation bi la xawma lan mm-hmm. parce que ñoom lu ñu meloon mais est-ce que situation chef bi ñu amoon suñu am mm-hmm. mais est-ce que que sëñ bi bi ñu yore nii léegi ma ne non moo tax ba bi ma dégg ñu wax FDS ci laa xam na lu changé d'accord parce que force de défense de sécurité ay force de sécurité lañu défense boobu ki ko ci dugal kooku mooy indi problème yi am yi mhm. donc les forces de défense ay armée mooy force de défense mhm. mais gendarmerie police ay force de sécurité lañu war a doon moo tax kii ñëwaat a am liggéey bu mag si loolu mooy fi firndeel nag yenn saa bu ñu gis ak opposant mhm. li ñuy njëkk a gis ci moom ennemi la ñuy njëkk a gis moom boo waxee ñu ne on a reçu des ordres dootuñu sukkandiku nit ci ay texte des na sukkandiku ci ay code de déontologie ak ay code de yoo xamante ne nii moom moo xam ne ci lañ daan dox bu njëkk ñu ñu léeg-léeg dañuy sukkandiku ci ay allo ay day allo ma ne xanaa nga nekkoon ci l'armée ma ne xanaa nga nekkoon ci l'armée bi non non non man man def ma nekk mosuma ci nekk mais fekk man observateur laa boo xam ne Sénégal man dara du ma rëcc. d'accord et puis bon waaw donc man dama dama man damay recherché pour xam dëggantaan sama réew lan moo fi nekk. Mhm. waaw ndax aussi tam am naa yenn at yu ëpp parce que fekk naa Senghor tuuti fekk naa Abdou Diouf tuuti. Mhm. fekk naa Abdoulaye Wade donc fekk naa aussi Macky Sall. Mhm. gis naa ko ci nekk ni nga doon doxale te man si àll bi laa dëkkoon sama papa ci li nga doon liggéey ci administration. gis naa bu njëkk sous préfet yi tur bi gëdd bi ñu leen joxoon mhm. boo te ñëwaatee actuellement nii ñu ñëwee li ñu perte gëdd boobu nga xamante ne administration centrale bi mhm. même bu fekkente nit ñi dañu leen ragal ba duñ leen wax dëgg parce que dañoo teg ay ay ay ay ay ay ay barricades yoo xam ne mhm. danañu permettre nit ñi kenn du lu ñuy wax dëgg donc loo wax ñu ne offrance léegi bu ko defee ñoom ñoom dañuy dox rek di dem di def ay a yu bari ragal leen kenn loolu wax dëgg parce que boo waxee ñu sànq la te alors que dañuy war nekk ñoo xam dañu war di déglu man dama déglu Macron keroog bi ñu di poli bi ñu amee amee di France mu laaj ko qu'est-ce qui s'est passé bon mu wax ko nag mais ils ont tout brûlé taal nañu ay bâtiment public ay taal nañu ay commissariat et tout mu ne ko rien n'explique ah, la mort d'une personne même bu ñu taaloon France ba mu jeex amul leen droit rey fii donc mu gis ko ne mu cinquante na benn mais mhm. ñu gis ay journaliste génn taxaw di def l'apologie du crime mhm. taxaw ci kaw naan ñoom ñoo génn ñu rey leen gis ay kilifa yu mag di défendre thèse bu mel mu ma ne man suñu réew mi yàqul nit moom moo nekk au delà dem matériel oh malheureusement ay ay malheureusement ligne bi dagg na on s'excuse ah, am moo ngi woon fu fu fu am solo vraiment moo ngi woon fu am solo moom mbokk moomu ah di ñaan su ma nee dil soit ka ah, àggali kàddu yu am solo yi nga xamante ne moo ngi ko doon euh, moo ngi ko doon moo ngi ko doon yëkkati vraiment kontaan ci moom bu baax a baax a baax di analyse bi pertinent woon na aussi par rapport a la vraiment a à l'intervention de nos forces de défense et de sécurité m'a même rectifié de kenn du wax force de défense mais force de sécurité la a wax ndax défense bi waa armée ñoo ko yor donc suñu ci doolee défense rek am na leneen loo xamante ne boole nañ ko ci seen mission te euh, mën nañ wax ni mën nañ wax ni euh, waru leen donc régie su nekkee am na keneen ko bëgg bokk ah mën nga ko dugal 77 810 90 90 77 810 90 90 mooy numéro bi nga xamante ne moo leen di mën a may ngeen daal di euh, bokk ci waxtaan wi 77 810 90 90 plume rare maa ngi lay jaajëfal Ibrahima Pleya maa ngi koy wax sànq vraiment merci euh, pour ta présence ak ni nga xamante ne noonu ngay dirigeante vraiment waxtaan wi ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax Serigne Saliou Guèye merci pour les cœurs am na ci solo trop soxna Ibou Ousmane Sonko itam ñu ngi koy nuyu di ko waaleykum salaam wa rahmatulah. Pape Demba na ngeen def. sant yàlla waa Zora monsieur Loone. man maa ngi nii rek di sant yàlla. mais gouvernement bi tegu na. ah moom laa moom laa leen moom laa leen bëggoon laaj ji ndax yéen loo leen ci xalaat tegoogul de waaye am nañ yaakaar xëy na fii ak suba la ñu la ñu dina am lu leer de su nekkee teguñu ko ci diggante bi. laata ñuy commencé waxtaan wi. wala wala wala dañuy bàyyi ba àpp suul ba ba. tribunal ka Ziguinchor joxe ba pare ñu soog a teg gouvernement bi. déet déet réew mi kañ mënuñu toog une semaine réew moo xamante ne une semaine amuñu amuñu ay ministre loolu tamit ëpp naa loolu kañ. zarab zarab zarab daal réew man man dama bëgg nga leeral askan yow dañ la tànn ministre loolu loolu laa bëgg nga wax. zaram zaram zaramu ministre cinq mois. loolu loolu doy de. non en fait yow dama bëgg nga wax gaynde yow da nga ministre nga da ngay woote ci émission pour gars xam ne am na ministre buy woote ci sama émission loolu laa bëgg nga gars xam. ah waay ah ah zaram démb am na lu ma la wax nga ne ma papa dem ba bu bul tax gars kii ma mais zaram bul tax gars kii ma. <laughs> ah doo ministre. <laughs> yow xamante nañ mais ci loo nekk nag. allo. allo oui ma ne ci loo nekk.